Mbàkke dem na France yaa di ban fooyam foofu mil daarul janna mboolem saqet bopp yaa ngi caaxaan xëjoo noo kii xojuli luy caaxaan këri tabax lay seddale Ndakaaru ay junni lay maye Ndar ba Daaru si banag toni ceeb ak saajo lay may waajo la gedd gaañu mbàkke ba jur bel koo gis muy tuuse sa bon la yor yow ku la bañ muy xuuse ci li def ci mi Cheikh Madul Muxtaar ci nga def ci mi yaa yor Sénégal ku bañ sëriñ see ahmadul muxtaar yàlla du la baal ku rakkaaju mu faj la mooy loo ko tawal mu faj ko mooy xabibu rahmatan lil aalamiina turan loo ñàkk ko maa aw ma dara daarul xudus def na fay danaa fay xayma yi waloon nee leen apar yaa nga faaki Ahmadul Muxtaar apar yaa nga faaki naas tedd sa baay baa ko gorne moo di bi de jumaaje moo andi Seex Bamba ci biir muy waaja yaa di donoom si Ahmadul Muxtaar balay sa sigiru soota daagu mbaay nga jey sam yaa jënd këram sa bay Ndakaaru doole jëkkëri tol ni ñoom ñu waaru guy mbëtt gër ga yaa ko moom ak dër ba see ahmadul muxtaar balay sa yaay borom ci am na fa daaru xudóos këri tabax yu taaro ak i dogi soo ak i tabax ndakaaru këru yaraaga te dëgga saaram ba sëriñ Madinatu Laay la ga murit yi wër ko doomi Cheikh Modou Moustapha Mbar la ma wax la ndami Cheikh Ahmadul Muxtaar nga xam ni njoor mi kii du nuru ndaama cey li mu am tey li mu def ci Sénégal ku nekk may na la gën la ca sa may na ma man ay junni ماينا ما ويجر جني جني مي باب الخيور يالنا باركي لني واوني وجيبو سي عمر بن المختار يا خطبنا يا قوزنا يا امامو يا موسى عليكم السلام ايا امادو اصل يا مو لا زال في ساعتك الجام سيومد المختار سيومد المختار بلايس يا نجرل سرجم سيوم مصطفى الكريم يا نجرل نيودي فندرام لا لنا ياتي بك المرام Cheikh Ahmadul Muxtaar yaa nu jaral luy wuti fol niraam balay sa lalana yaati bikal maraam Cheikh Ahmadul Muxtaar yaay suñu ndey di baay di mag di yaa di yaa doon mbar ma daam waxab alaa noorayni ay mbakke nag ñu defal saadatu daarayni للخادة الأجور والمسالو بطيب الجسم وإني سر سالو سل على سالم ومسلح الصادق صدق صلاة تصدق أصلهم Maroon Bakel lu sikat. Ci magal kas la nekk fii kër Sëñ Moustapha Ndiaye Karib. maa ngi gërëm waa Tektal TV yëpp kontaan nañu ci.